ni ñu ko defee fépp si diwaanu Touba ci dëkk bu sell bi fii si Jannatul Mahwa ci kër Serigne Mourtala Mbacke ibnu Serigne Saliou Mbacke dundal nañu màggal gi nañ ko daan defee at mu jot màggalu Touba gu ñu amee ci teewaayu sëriñ bi ci ndigalam ak ci coordination mu taxawu liggéey bi ba mu matale lépp daal di doore nag ak ndigalal sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba gi mu woote sant suñu boroom sant suñu boroom ci bernde jaamu Yàlla كان لي berndeel jëmm yi waaye it berndeel ruu yi nga xam ne dañ ko daal di doore ak li nga xamante ni bi moo di njàngum alxuraan ci bés bi nga xamante ni bi jàng nañ fi ay jukki yu bëree bëri waaye it daal di fiy amal ay durusul yi nga xamante ni bi moo di xasaayit yi ñi nga xam ne noonu lañ koy dundalee ñi nga xam ne it noonu la ko sëriñ bi daal di digle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 waaw kon muy mel ni dañoo ñu ngi waat fii ci beneen bërëb ci biir kër gi di bërëb boo xamante ni ñu ngi koy tuddee events ñoo fekk si fii suñu mbokk taalibe yi fi nekk ñuy liggéeyal fii taxawaay ñu am fi taxawaay bu am solo di ko liggéeyal sëriñ bi di sëriñ Mouhamadou Mourtada ñu taxaw fii suñu jëwrin ñu bëggoon a xam uh, jëwrin events bi lan moo gën a nekk taxawaayam ci biir kër gi waa events bi nag moom daanaka day mbir moo xamante ni ci ndigalu ku baax ki lañ ko sosee ay at ñu nekk ci ay ati at ñu nekk ci di ci liggéey at bu yàlla sàkk ñu koy bu màggal di jeexee rek ñu tàmbali liggéey bi ba màggal jotaat waaye nag lépp nag day doon ci ndimbalu ku baax ki lay nekkee ndax daanaka boo xoolee lépp ci moom lay tàmbalee te lépp ci moom lay yem kuréel gi nag jëwrin mun maar moo ko jiite tey ji xëy na moom moo ne ma waxal ma wax waaye liggéey bi boo xoolee bërëb bi nii mu demee ku baax ki moom day am ay nitu boppam ay ganu boppam jox ñu ndigal bi ñu koy taxawal bu ko defee yenn gan mi bu ñu ñëwee ñu gis liggéey bi ñu fiy def mën leen mën leen dalal xewal géeg lépp ñu mën ko defal leen ko boo ko boo ñu mën ci xewal bu baax a baax daal loolu daal daanaka moo waral lii di ñuy woowee ndax ju events bi daal. waaw boo boo xoolee comme ku mel ne ren ji daanaka ñetti fan lañ ne la ñuy restauré comme ku mel ni démb di 17 safar bi tàmbali nañu def nañu cocktail ak reer tey jii boo xoolee daanaka ndékki la ñu def. añ dinañ def cocktail ak reer ëllëg tamit di 19 safar bi incha allahu rabin am nañ yéene tamit def cocktail ak reer daal noonu lañ koy defee loolu lépp nag waaye ci ndigalu sëñ bi lay doon ndax euh, ay mbébét yu ni am na dem toog waxtaan seeg moom nañ ne mun nañu xamal nañu defee leen ko nii ak nii ak nii daal waaw. dafay mel ni ci déggee leeral gi ci li nga ci gën a leeral mooy euh, seen bëgg-bëgg dëgg mooy képp nga xamante ni ñëw na fi rek. li nga xam ne yitti woo na ko rek ci kër gi mu fekk ko fi kon loolu day doon liggéey boo xamante ni lu am solo la ñu ciy santaat na bu baax te di leen ñaanal suñu borom kàttanal leen ci comme ni ngeen ko euh, lu leen ci tax a jóg rek muy bëgg-bëgg sëriñ bi tedd bu dëppook ajuma ji nga xamante ni bi dañ koy daal di dundal ajuma ju jot ci jumaa ju mag ji nga xam ne moo nekk fii janatul maxwa waral sëriñ bi si boppam nag daal di taxawu julli gi ni mu gënee mucc ayib daal di amal li nga xam ne moo di jullik ajuma gi nga xam ne dafa daal di tombeek bés bu tedd bi nga xam ne moo di 18 safar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 te mu te mu gën a kawe loola ndax li tax euh, mbir mu baax lu baax dafa da yem benn barab te day jëm ci kanam rek maanaam bi fi Serigne Saliou euh, nekkee fa liggéey bi tolloon Serigne Moutala yóbbu yóbbu na ko fu kawe lool ginnaaw loola ñun ñu ànd kook moom ak taalu bem yëpp. Euh, ginnaaw loolu it am na jeneen daara ci ngaabu yoo xam ne ci li ko fi Serigne bi bàyyil la waaye da ko soppi xar kanam gi defaraat ko ba mu mucc ayib.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 saytu li nga xamante ni bi moo di mbooleem bërëb yi nga xamante ni biir ñu ngi fay taxawu liggéey bi am lu jëm si wàllum organisation yi bernde yi ak ñi nga xamante ni bi ñooy mboolem commission yi yëpp nag fu ne daana fiy teg tànkam ngir saytu tolluwaayu liggéey bi ak taxawaay bi nga xam ne moom lañu amee ci bis bu tedd bi ak safar gu ànd ak bernde gu yaatu fii ci kër Serigne Mourtala Mbacke ibnu Serigne Saliou Mbacke nga xamante ni biit daan nañ fi yaatal bernde yi nu mu gënee mucc ayib ngir taalibe yeeg jullit yëpp. siyaaraat mbooloo mi bu baax ba tey comme ni ñu ko waxee woon ren euh, ci biir kër Serigne Mouhamadou Mourtada tey ñu nekkaat ci beneen pàcc boo xamante ni ñu ngi koy muy pàcc bi nga xam waañ bi la mooy waañ bi jàkkaarloo fekk ak jëwri ñi nga xamante ni ñoo fi nekk doon leen jox seen doon leen jox kàddu yi di leen euh, ñu gën si ràññee ki nga xamante ni mooy jëwri manal di kilifa waañ bi jëwri ñu ngi lay siyaar bu baax di la laaj euh, bëggoon nga xamal ne organisation waañ bi nan la tëddee di waxaat jërëjëfe borom tubaa di dolli di waxaat jërëjëfe borom Touba di wax jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall sunu jàmbaar ja sëriñ sëriñ Touba sëriñ Saliou yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokk ay leeram taaf ci barkeem sunu sang bi ñu yaakaar tey ëllëg mu dox sunu diggante ak sëriñ Touba di sëriñ Mourtada mu sëriñ Saliou yàlla na ko fi yàlla yàggal wéral ko kattanal ko musal ko ci ndab ak ndog ba lim yéene liggéey sëriñ tubaa maamam yéene ko liggéeyal sëriñ Saliou yéene ko liggéey jaam ñi lépp mu mën ko matale te ànd koog moom ci daraje sëñ Touba Euh, di wax ni Tawfekh Production ñëw gi ñëw fii tey ci waañ wi bëgg nañ ci bëggati nañ ci ndax daaw ñëwoon nañ fi daaw jéeg ñëwoon nañ fi ren ñëwati nañ fi yàlla nañ fi ñëw déwén te fekk ñu fi kenn bañ a manqué beneen bi si des xëy na dañuy wax ci turu Assane Fall min bokkal waañ bi muy jëwriñ ji ndax moom wax dëgg yàlla danoo am complicité bu garaaw boo xam mi ngi ci suñu biir ñu ànd di liggéey mu am yu mu féete woo ma am yu ma féetewoo mooy buñ liggéeyee buñ nee suba la màggal moom mooy xëy nekk ci waañ bi ba guddi man ma fanaan ci man ak yenn soxna yi ak yenn góor yàlla yi ak jóorin manel mi ñu fanaan fi nekk fi fasa fas e, fas yéene togg ndekk yi ñu mooy misu yi ñuy defar ak laax yi buñ paree ci loolu dañuy jublu ci añ yi daal di koy àndewaat ñun ñëpp lépp lu jëm ci wàllu paella bi man maa koy defar man mii nga xamante ni moom mooy liy ànd ak fruits de yi ak lépp loo xam ne aju na te mbokku taalibe yi di ko réclamer saa su ne ñuy taxaw saa su ne di si di si di ko ànd ñun ñëpp te kenn ku ci nekk doo seetaan ndax bu doon man kese du sotti waaye dañ koo ànd ñun ñëpp moo tax mu sotti ci niñ ko mën a waxe ndax waañ bi mooy waañ bu mag bi donte nag am na ay togg yu am ci biir muy lu mel ni event nga xam ne ñooñu ay ganu sëriñ bi la ñuy toppatoo ak yasa aju ku mel ni taabal bee nga xamante ni ñu ngi koy askanelee ku mel ni Cheikhou Ndiaye moom ak waa Thiès ànde koog daayira yi si kër gi yëpp nag amuñu ci xejj ak seen te te loolu loolu ndigal lañ ci am doo xam dafa jógee ci sëriñ bi sëriñ bi moom moo xool ba seppali ko daal ni damaa bëgg ngeen gën koo jëmmal ci kër gi te mu yaatu ba ñëpp ko ci te Seexu Njaay mii jëwriñ ji saa yu xëyee ci loolu lay dox nu mu gën a yaatoo ba ñëpp di ci gis suñu bopp kon loolu ñu ngi ciy sant Sëñ Tuubaa baax baax am mbégte ci li nga xamante ni moom la fi jëwriñ mën a mënal wax léegi te liñ ci gën a jàngatee rek ci ci leeral ci liñ ci gën a leeral mooy benn nga xamante ni Sëñ Mutulaa woote na ko ci kër bi boo ci biir waañam bi kon bu ko defee kii nekk suñu càmmoñ ñu koy wax suñu béykura moom mu teewal fi ñi nga xamante ni ñooy lewatal nag yi Cheikhou Ndiaye question boobu ñu ngi la ci sawar di soo tontu ndax soo xoolee biñ ne suba la màggal gi si guddi gi dinañ lewatal ñeenti nag ak benn giléem maanaam ngi màggal bis bi. bu ñu xëyaatee yeneen ci teg ñaar wala ñett àndaat ak yi ñu nekk si waañ bi benn laaj seen xam-xam ñu toll ak gaa yi maanaam loolu moo nekkoon nga xam te ni moom lañ ci nekk si bis bi ak gaa yi ba ngoon jot di maanaam di sàkku si ngërëm sëñ tamit ni ko sëñ bi bëggee ñu koy defee noonu. solo sëñ Bass nag moom mooy jëriñu euh, Lagambal ñoom ñooy mel ne li jëm ci wàllum plonge raxas ñoom ñoo ko yoon gàttal rek waañ bi moom ñu ngi ciy gën a sant yàlla bu baax baax ci bennoo gi ñu doon ànd di ci ni ko sëñ Murtalaam sëñ Saali bëgge doon benn di xàccandoo di doorandoo bokk liggéey bi ñu nekk ci plonge ak ñu nekk ci kii bi kenn mënut a ràññeelante ak sa moroom ndax fu mu fooxe rek ñu daal di fay daal di fay dem jàppale leen ci ci mbir moomu waaw léegi wax dëgg fa yàlla jafe-jafe moom amuñ ko ci wàllu raxas mi ndaxte euh, wax dëgg fa yàlla taxaw nañ ci te postafu nañ ci lool wax dëgg yàlla ñoom buñ euh, buñ ñëwee amuñu fenn yitte fu dul maanaam ci waa ci ci ci ci raxas mi ak euh, maanaam postef giñ ci àndal ak bëgg-bëgg gi foo ko nat passé na ko kon ñu jara sant lañ ñu jara ñaanal ñaanal lañ sëñ Modou Jaxate moom lañ waroon ubbee mm-hmm. kon sëñ Modou Jaxate ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax sëñ bee ñu booloon ak moom te ba ñu sëñ bi booleek moom ba léegi mosu ñoo gis ci moom lu ñu naqari. kon mbokk yi ñoo ko ñoo ko déggandoo loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon ci waañ bi ñu àndoon ko ak jëwriñ mi nga xamante ni mooy kilifa waañ bi euh, lépp dégg nañ ko muy ay kàddu yu am solo rotee fi te gën a firndeel li xamante ni moom la sëñ bi di woote mi bennoo ak mbooloo gu doon benn

bisimilahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokk internet yi euh, Nox ju Nox ju TV ak euh, Tawfekh Production ñu ngi leen di saar yéen ñëpp di leen euh, jaajëfal di leen dikkal nii tey jii ñoo ngi ci bisu 18 safar bii kër Serigne Mouhamadou Mouxtada ibn Serigne Saliou nekk ci benn pàcc moo xamante ni muy pàcc moo xamante ni ñu ngi ko tuddee wàllum distribution maanaam fi ñuy séddalee ay ñam ñu nekk faak ay jëwriñ yoo xamante ni yu am solo jëwriñ ñu ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar dañoo nekk si pàcc bu am solo ndax euh, sëñ bi moo ne màggal bu ñëwatee bisam bi nañ ko santale yàlla te ci santale yàlla boobu da cee waxaale berne du ko dalee ci ginaar ba ca gëléem te ku ne berne na séddale kon nag jëmmi jëmmi bâche bi lu ko tax a taxaw mooy maanaam séddale ñam yi muy ndékki comme niñ ko defee léegi nii ak añ kanam ak ngoon ca ba waaw kon mooy mooy mooy jëmmi jëmmi bâche bi nga xamante ni ñu koy waxee bâche distribution nga xam ne képp koo xamante ni taalibe la. ci kër gi ñëw màggal ci moom fii ngay dugg ñu jox la nga ndekki jox la nga añ jox la nga reer waaw kon nag jëmmi-jëmmi liggéey bi loolu la jëruñ waaw léegi nag euh, bu ñu nee distribution yamul lekk si séddale lekk dafa am collation chaud ak xam naa moom jëruñ dina ñëw moom mii nga xamante ni mooy jëruñ si Njaay moom moo yor collation chaud collation froid bi jëw liñ euh, palaay moom moo ko yor waaye ñun jëmmi-jëmmi bi nga xamante ne lépp luy waaj xeetu lekk li jëfandikoo fii lañ koy joxe ci bâche bi. kon euh, fii suñ ci amoon ñu ngi am euh, sëñ Baye Cheikh Gueye moom mu ngi mu ngi bawoo Dakar moom di kenn it moom ci ci liggéey bi Baye Cheikh ñu bëggoon nga wax ñu naka ngeen dundee liggéey bi ak euh, yan jafe-jafe ngeen ci jànkuwanteel. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar waa nox ju yëpp di ñaanal sunu sang bi Cheikh Mourtada moom Serigne Saliou Mbacké sunu boroom yàggal ko fi lool te mu gën a wér ñu gën a ànd ak moom liggéey bi Serigne bi. waaw liggéey bi de moom euh, metti na mettiwul liñ ci jublu mooy euh, dabu mbégum sëriñ bi ndax comme gan ñi màggal gee leen fi te dañoo ñëw ngir ànd ak ñun màggal gi ci kër sëñ Murtada ñun baas bi ñuy séddalee xéewal yi moom lañ yor waaye dañuy bëgg ba képp ku ñëw ci kër gi rek nga mën a xewlu xéewal xéewlu gu jàppandi te doo am benn jafe-jafe waaw ñun loolu lañ yor ma ciy jàppale sëñ Mampa ak Bukunta mbokki taalibe yi ñu ko àndal yëpp rek maa ngi tudd di wàcc foofu kàddu yi. waaw kon mbokk yi comme ni ngeen ko déggee rek loolu mu doon loo xamante ni lu am solo la euh, yaakaar naa ni kii moom la ñuy wax sëñ Bou mooy mu nekk féete Mbour moom moom am pa mu doon loo xamante ni tey lu am solo la ci biir kër sëriñ bi ñoom ñu koy ñu taxawal ko ci loo xamante ni bëgg euh, li lépp li nga xam ne xew xéwal la jàppandi ci mbokku taalibe yëpp yemul rek ci ñi nga xam ne ñooy daal ci kër gi ndax seetlu nañ ci am na si ñoo xamante ni dañuy jógee sax ci yeneen gox di ñëw di di fi xéwloo tey sëñ sëñ Moussa képp koo xam ni koo xam-xam ni moom ay mbiram yaatal la ci xam tey ñu nekk ci biir kër sëriñ Mouhamadou Moutala topp nag daan topp commission yi benn par benn te ñu jaaroon ci commission cuisine ak distribution fu mu toll nii ñoo ci commission bi ñuy wooyee collation euh, di commission boo xamante ni lu wàllum restauration dañ koy def ak euh, li nga xamante ni mooy di jëm ci café was ñoom ñoo koy séddale ñuy taxaw ak fii soxna suñuy wax euh, Aminata bokk ci kenn ci ci mbooloo mi. sant Serigne Mourtada mu sëñ Saliou Mbacke mii di sunu wasila waaw lii li mooy maanaam yitte bi nga xamante ni ci lañuy dox euh, loolu mooy nekk suñu yitte lépp loo xamante ni buñ ko defee ci màggal gi rek euh, nit ñi dinañ bég ci loolu la ñuy dox ànd ceeg sunu soxna yee ngeen di gis ànd ceeg sunuy càmmiñ daayira bi ci di ci dañ di maanaam buñ buñ jógee màggal ni daanaka lañuy tàmbali di waaj ngir màggalu déwén ci lañuy tàmbale ci lañuy tàmbale saa su ne ñu ngi jéem ci ay jéego di def suñu kéem kàttan ngir lekk li nga xamante ni moom la ñu mu Mourtada Saliou sant ñu di ko jëfe mënuñu lépp nag waaye dañuy jéem rek asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, waa Tawfekh production ak waa Naxju production ñu ngi leen di euh, Naxju TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ndokkeel ci bis bu tedd bi di màggalu euh, Serigne Touba yi waaw comme niñ ko faral di ko defee rek saa su ne euh, comme niñ leen ko waxee waat niñ leen ko waxee woon daaw. noonu lañ ko noonu lañ ko doxalaate waaye day mel ni comme niñ koy faralee di wax naan sëriñ bi moom amul tànk ginnaaw tànki kanam rek la am noonu lañ ci doxe am ay innovation yu am solo yoo xam ni bu ngeen parcourir le li nga xam ne moom mooy ci biti ak fi ngeen xam ni moom lañ moom ngeen nekk di ngeen gis ne am na changement yu bare bare yoo xam ni def nañ ko ci loolu nag li ko waral lépp mooy waa équipe collation a chaque fois dañuy xool li nga xam ni mooy moom la moom la waa waa kër gi bëgg moom la mbokk taalibe yi bëgg ñu ciy dox loolu daal moom mooy waral li nga xam ni innovation yeeg xéewal yi ngeen gis yëpp loolu rek moom moo ko moom moo ko moom moo ko waral ndokkeel ci bis bu tedd bi di leen ziyaara bu baax a baax sëñ Maxaali di ñëw ci laaj bi ñu laaj mooy euh, kuréel gi nga xam ni moom lañ yor te mooy pàcc bi ñuy tuddee culturel ci biir kër sëñ Mourtala mu sëriñ Saaliw culturel nag buñ ko waxee moom mooy loo xam ne lépp lu jëm ci wàllu njàngum alquran ak njàngum xasida euh, ak tudd yàlla ak yeneen ak yeneen yu ci aju di ponk bu am solo ci bis bi ndax bis bi suñ borom si nga xam ne Cheikhul Khadim jot na ndigal ci suñu borom mu jox ko ngir ñu santale ko yàlla dafa am xeeti cant yu baree bari cant ci làmmiñ waaye sant ci berne waaye sant ci li nga xam ni moom mooy euh, xol yi ak ruux yi pàcc bii nag di culturel am ci solo muy pàcc boo xam dañ ciy sant yàlla ci ak tudd tudd gi bu ma ko waxee mooy jàng alquran mooy al kitaabul karim bi nga xam ne Euh, mooy téer bi nga xam ne moo bàyyi koo ci suñu borom tabaaraka wa taala di lu tedd ci jullit ñi te féete kaw lépp ci téere boobu muy alquranul karim ginnaaw bu ñoo xam ni teer weer wis weer wis euh, weeru safar yi teew na ci la ñuy tàmbali li nga xam ne mooy njàngum alquran bi ak njàngum xasida bi kuréel yi danañ ko daara ju nekk dana ko sàlloo di di ci def lam ca man ba keroog ñuy àgg ci bis bi buñ àggee ci bis bi itam bu ñu xëyee ci bisu disu safar danañ euh, xëy 8 heures seddale kaamil bi danañ danañ jàng alxuraan ba 11 heures jot ci diggante boobu it lu ñu fi am ci ay kaamil baax na waaye bu ñu tàmbalee 8 faw ñu bàyyi 11 euh, heures la ñuy bàyyi ci digg diggal boobu ñuy jàng alxuraan tamit danañ jàng xasida danañ jàng xasida ñi nga xam ne mën nañ durus alxuraan durus alxuraan ñi mën a jàng xasida di jàng xasida ñi ko mënul te seen kurus di def al istixfaar wala ñuy def salaatu ala nabi wala euh, turu yàlla wuñ man ñoom it danañ toog ànd ak jataay bi bokki taalibe yi di ko def ginnaaw loolu itam ni ngeen ko gisee euh, programme yi dañ koy def 17 17 safar ak 18 safar ku nekk xam na ni Cheikh Mamadou Mourtada ibnu Serigne saaliw dafa am ay daayira ci gox yi Sénégal yëpp gox yi nga xam ni dañ ci am ay kuréeli xasida kuréel bu nekk danañ am heure buñ la jox ci diggante 17 safar ak 18 safar ci loolu itam euh, ku nekk xam na ab morit boo xam ne dafa bàyyi ko ci barab ñëw euh, ci euh, kër sëriñam war naa jël war naa yóbbaale ab yóbbal yóbbal yóbbal mooy lépp loo xam ne dafa koy soññ ci wàllu diineem <coughs> wala wàllu àddunaam wala ñu soññ ko ci doxalinu àdduna wala yitte wala lu mel wala lu lu lu ko nuru tem bépp tem rek boo xam ne dana jëriñ nit ki ci diineem wala ci àddunaam danañ tànn benn tem boo xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir Faye ak ñoom sëñ Abdoul Ahad Bousso ak sëñ maam Cheikh Fall ñoom ñoom ñoo koy def ci guddi gi su ko defee murid taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw am loo xam ne dañ koy yóbbaale moom it ci bisub tey bii dañ koy def ci guddi 18 euh, safar wajjal jamial muminina fil oda wal muminati suma fi mada wajjal jamial muslimina firdixa wal muslimati بسدي أديم تخاء وجل جميع العلماء عاملين وجل جميع عامل المخلصين وجل جميع المخلصين ساحدين وجل جميع الساحدين ناسخين وجل جميع صادقين فايزين kon itte ju kawe mooy loo xam ni nit ku nekk war na ko am kon ponk boobu lañ jukki tey xam naa ni du gudd ndax waxtu wi ni mu demee waaye dafa dul mën a ñàkk ngir bépp murit bu ñëw ci màggal am loo yóbbaale loo xam ne dina la jariñ dëgg la bernde am na déglu xasida am na jaamu yàlla ak lépp baax na waaye faw it murit bi ñu soññ ko ci loo xam ne dana ko mën a jariñ àdduna ak alaaxira loolu mënut a ñàkk ci màggal moo taxoon ñu jukki ponk boobu di euh, yitte ju kawe sëñ Mouhamadul Bachir war ñu cee indil ak sëriñ maam Cheikh. ndax foofu tudd nañ baatu muñ tudd baatu azima mu mel ni kon ñoom ñaar boo leen boolee mën nañoo jur li ñuy tuddee yitte walla yitte kon ku ko bëgg kon faw da am ak muñ faaw da ngay am ak dogu ci li ngay def détermination bu mag ngay àndal ngir mën a am li nga bëgg ci àdduna bu dee ci bu wàccee loolu ba ci ñun sunu jotaay yii nga xam ne jotaayu tarbiya la aku muritu ngir bëgg ngërëmal yàlla di ko jaare ci cheikhul xadim di ko jaare ci njabootam gi ku mel ni sunu kër cheikh Mouhamadul Murtada li nga xam ne moo ci jiitu ci yitte mooy farata ndax fawu doomu aadama xam farata ak li farata farata mooy yitte piir ndax leneen lu jullit bi def te du farata ci moom loola li ñu tudde ay ashiya sanawiya maanaam lu secondaire la mën naa am njariñ waaye njariñ la jëmut ci yàlla mën naa am ci boppam rek la jëm wala ci àdduna rekk la jëm loola du yitte dëgg-dëgg moo tax jël sa àdduna sépp euh, jox ko sa sa dund gépp jox ko àdduna kese loolu du yitte nit ñi nag mën nañ koo jaawale mën nañoo gis ku farlu lool ku mën a dajale koom lool walla kuy kuy njaxlaf daal ci lu ne waaye mbiram digganteem ak boroomam da ko woyofal bu ñuy joxe misaal ci yitte ci lislaam kenn du joxe kooku misaal maanaam ndax dafa jël àddunaam def ko muy léppam moo tax booy xool ci ñaani nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon dañ daan wax ne wala tajali dunia akbara hammina maanaam bul jël àdduna rek def ko sunu yitte jépp ndax ñooñu xamoon nañ ne àdduna am na solo ndax yowmal xiyaamit lañ fay séentu fii lañ koy faggoo kon fii am na solo waaye jël sa yitte jépp def ko àdduna loolu ci lislaam du yitte wut alalu àdduna du leen jaral ñu sànk ak jàmm yàlla wala mu tere leen def lu baax kon loolu sunu borom day wax ne kon nit yitte nekkee ci moom yitte digganteem ak boroomam dana tax mu fonk lu baax di ko xeñtu di ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey dafay soññ ci yitte ju kawe mu ne képp koo xam ne sax da ngaa yittee def lu baax yitte am yéene def lu baax te am gàllankoor ba defoo ko nee na yitte ja nga am ca def lu baax ak yéene ja yàlla dañ la ci bindal tuyaaba maanaam ki jug bëgg a def lu baax far am gàllankoor même bu ko deful yàlla dana ko bindal tuyaaba bindal ko aw yiw ci yitte jooju nga xam ne am na ko eh, lii tax nag yitte di nekk ci nit ki mooy am na ci mbir yoo xam ne ni nit da ko war a jox yitte maanaam am na ay mbir yoo xam ne nii nit bu ko joxe yitte day tax mu raw ay moroomam yàlla sunu borom dafa soññee ne na ngeen di rawante ci lu baax fastabiqul xayraat aynama takunu yaati bikumullahu jamian na ngeen di rawante ci lu baax nit bu rawanteeg yow na fekk ne bu dee lu baax la na nga fexe bu mu la ko gën a bëgg sa moroom bu mu la gën a bëgg lu baax lu baax lu nekk rek fexe ko gën ko ko bëgg gën ci rawanteeg moom bu dee ab safaan nag bu ci rawante ndax ab safaan moom day sànk nit kawe yitte ju kawe nag mën nañ koo làmb ci ay anam yu bare bari yoo xam ne nit da cee war a kawe yitte lu mel ne benn bu ñu mooy sàkku xam-xam nit buy sàkku xam-xam yitteem daa war a kawe la noonu it lañ ko daal di amale ci wàllum jàngum xasaayit goo xamante ni bi bu matale la ci suba gi ci bëccëg gi ba ci gudd gi njàng moo xam ne it sëñ bi teewe na ko soññe si taxawu ñi nga xam ne ñu di taalibe yi ak mbooleem jullit yi fi teew yépp ngir màggal gu mucc ayib goo xamante ni bi des na ko amal ren nu mu gën a yaatoo waaye tamit waajal at yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci kër sëriñ Moxtala Mbàkke ibnu sëriñ Saaliw Mbàkke